asalaamaaleykum la famille j'espère que yéen a si jàmm bon merci d'aimer la vidéo partage la vidéo parce que gëj naa def vidéo toog di wax ci actualité gëj naa def vidéo toog xama di waxtaan ak yéen moo tey moom dama damay def benn vidéo boo xamante ni damay am lu may leeral parce que dafa am benn gaayen bu créer compte TikTok du ma sax benn gaayen damay wax dafa am ay gaayen yoo xamante ni dañuy créer compte TikTok di rey ay nit mais bii moom ça me concerne parce que kii dafa créer compte di rey samay nit man nit yoo xamante ni dama leen xam ba pare nit yoo xamante ne damay seeg ñoom ay vidéo xaw ma ba xam danaan kii nii fàll vidéo ñi muy ñi dafa yomb trop moo tax ma bëgg leen lay waaye man comprendre ma ah, ma ne xaama def vidéo leeral looloo tax balaa boobu mu bëgg ngeen partage vidéo bi ngeen aimé vidéo bi ah, yéen ñi nga xamante ne tamit da ngeen jouer 1xBet sama code promo 21F la saa bu leen jouer da ngeen am 65 francs de bonus lien bi mi ci commentaire yaa ma gën a xam léegi nag ñu ngi may woo téléphone fàllu ku ngay jël Fallou ki ngay jël vidéo daa dee te xaw ma ci kan la parce que dama dem dugg ci compte TikTok waa ji bi ma demee dugg ci compte ma gis première fois mu rey euh, Biba deuxième fois mu rey Nanus troisième fois mu rey Binta ma ni waaw lan moo tax mu rey li mu rey leen parce que kooku dafa mel ni yàgg na koo def parce que su mu juumul am na ay plus de cent vingt neuf mille presque deux cent mille abonnés bon xam naa li tax nag instant yi nii affaire yi gën a am ampleur dafa tombé ak décès wu Momo de la série Virginie Euh, yàlla na ko yàlla yërëm te suuf woyof ci kawam muy nit koo xamante ni ku baax la koo xamante ni biñ gisan benn yoon lañ gisante waaw dañoo gisante benn yoon rek miinante ñuy kaf foo ree waxtaan xama yàlla na ko yàlla yërëm nit koo xamante ni tey jii kenn mësu ko dégg ci lenn yu ñaax fayda kon yàlla ko yàlla xaaree àjjana ci àjjana yu gën a kawe kawe kawe kawe xama te loolu sax buñ ko ko ñaanalul sax gën naa ni fa lay jëm parce que xol bi dafa rafet boo ko xoolee sax xam ko waaw kooku ci dese yu moomoo bi lay profité di dugal ay yeneen dese yoo xamante ni ba pare nit ñi dañ koy gëm dañ koy gëm man dama dugg ci kontam gis puis comment gis commentaire yi euh, bi mu layee bi ba yàlla na ko yàlla na ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla yërëm ma ne waa attends nu demee ni lan moo tax nit ñi buñ gisee kii dugal euh, dese bi ñu gëm ko ma ni attends naka da waaye ci xam na lay def de dugal sa photo def ni rép bu nit ko nit ku la xam bu xamee ne yow deewoo bu xam nga boo commentaire ni kii waxul dëgg day supprimer commentaire boobu noonu bàyyi ci ba pare waa da dalay rey ba pare di justifié wu nag naan la kii accident moo ko wala lii waa bi baa la njëkk a bi baa ñëw justifié wu mu bàyyi bi du supprimer vidéo yi nag bu ko bàyyi bi mu bàyyee ba pare mu ñëw reyaat nanus ne lii ak lii la la deewee lii ba pare lii gën a kon day jël yeneen vidéo Dakar Buzz <laughs> man kii dëgg na fit barke alxuraan karim bu jëlee yeneen vidéo Dakar Buzz koo xamante ni tey maire boo xamante ni doomam moo gaañ ah day jël vidéo yooyu noonu def comme si que yaayu yaayu borom photo yi la xam nga essayé nañ comprendre bi may waxee ba pare na commencé nit ñi nag dañuy am yërmande ba pare ma am leen lu may leeral yéen sénégalais yéen ñi nga xamante ni yéen nekk si TikTok bi di gis nit ñi naan décédé di balaa ngeen di écrit yàlla na ko yàlla yërëm vérifier leen bu baax a baax ba xam kii gaañoo ki ngeen wax kooku am na compte dem leen xool compte kañ la gëj a dugal vidéo ba xam justifié woon parce que gars yi ñi koy def buzz lañ bëgg ma leen di ñaan yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi def lool ngir yàlla yonente bi bàyyi leen ko parce que bakkan doomu aadama dafa foor billaay wallaay wa taalaay bakkan dafa foor de te yéen ñi koy def yéen ci bàkkaar bu rëy ñi nga foowee doomu aadama dafa dafa foor loolu baaxul man li ma li gën a garaaw mooy barki démb démb la rey Binta bi mu nga rayee noonu nee na moo ko rey seex yi nga xamante ni ñoom ci togg ba pare justifié woon ki supprimer man kii moo dëgg booy xaw ma booy xaw ma góor nga wala jigéen ma lay ñaan te yàlla tax bàyyi li ngay def li ngay def kenn ko fooy ku ne woo na ma naan ma ay yee fàllu ku mool gaañu la ma ne yéen yéen <laughs> bu ne non doo soo comprendre loolu taxoon ma ne xaaral ma def ma justifié am lu may leeral de gisee ñu ne diw dee na te li gën a ko mooy yàlla bu nit dee sax mu dugal ko nit ñi bañ koo gëm mën na rey nit sax ñu yaakaar ni deewul nit mën na gaañu mu dugal ko ñu yaakaar nit kooku deewul mais loolu rafetul waaw loolu taxoon ma ne xaaral de def vidéo dugal ko sama compte YouTube Facebook ak TikTok pour am lu ma leer juste bon loolu la woon di la ñaan di leen ñaaxaat yéen sénégalais boo leen gisee genre yooyu noonu xam nga dinañ ko zappé parce que boo leen mayee importance ñoom dañ leen di gën a kii parce que li ma jaaxal vidéo comme rey day gën a bëri vie da lay rey ngay bëri vie man moom xam na yàgg nañ maa rey xam naa li liñ ma yàgg rey moo tax mu jéggal ma reyum mais dama lay ñaan booy li ngay def kenn du ko def baaxul ngir yàlla bàyyi mën nga def leneen bëri ay vues mais loolu moom baaxul bàyyi ah loolu la woon merci demee la vidéo ngeen commentaire euh, di leen wax que ni gars yi <laughs> court métrage yi ñuy waajal barke sëñ bi laaj leen moodu ku métrage de fou ay court métrage yu garaaw lañ bind di ko tourner et que mi ngi ñëw saa arrive maa ngi gis tamit abonné yi ni mu yokkee deux millions abonné sur TikTok merci beaucoup aw ma seen aw ma seen fay maa ngi gis daal man maa ngi gis avancement boo rëy boo xamante ni mi ngi ci man xama te leen waral lu ko lu dul yéen yàlla na seen jàmm yàgg aw ma seen fay abonné yi Facebook aussi 500000 abonné xam nga dugaluma photo sax di ko wax mais dama xam ne 1 euh, million lañ jëm foofu noonu moo tax damay bàyyi la man 1 million te xam naa ne mën ngeen ko te dégg nga def jaajëf sama gars